salaamaaleykum sëñ bi. maaleykum salaam. dañ la bëggoon laaj loo xalaat ci fédération sénégalaise de football. de de ñu bàyyi leen fi euh, ngir deux raisons à chaque fois équipe nationale bu ñëw entraîneur bu ñëw ñu ne baaxul lan mooy yàq footballu Sénégal lan la ci suuf lañ ko war a xool question de maturité lay doon. mais lu jóg nga ne baaxul lu jógu nga euh, moom lu tax defu résultat lan moo tax mu nekkul ci ginnaaw te Sénégal dafa gagné ba ba ba qualifié ñaata match la ñàkk donc du problème fédération bi. fédération sénégalaise de football ñi fi nekkoon yàgg fi te dara mën la sotti nañu dem rek abal ñi ci des ñuy mosaat ñeneen ba xam ndax ñun xale yi sonn nañ ci ñoom yërëm nañ leen xaw ma nag ci ñoom la xaw ci fédération bi. ah waaye daal ñi fi yàgg nañu abal ñu ñeneen mos. ma juddoo ba léegi les mêmes noms laay dégg ay Mayacine Mar ay Amsata ay nii ak naka les mêmes noms laay dégg si fédération ñii dañuy dem ñii bouger ñii di ñëw ak ay affaire yi quoi ñooñu rek laa xam en plus fédération bi nekk fii. dañ dañ ñoo yàgg avertir ñu xam football dañ ñoo yàgg avertir lu mel ni El Hadj Ousseynou Diouf yàgg naa avertir nit ñi ne comme quoi que ni fédération mi ni muy doxee baaxul nu mu demee baaxul ay tokaar lañ nit ñi wax El Hadj Diouf rancunier la wala lee ko mais li mu wax lépp dafa leer naañ lépp am. man de ba ma fi jut ba fi nekkee ba léegi même fédération bi laa xam lenn daal laa xam euh, suñu demee jéem jéem jéem ba sonn mënuñu dañuy bàyyi essayé nañ comprendre nañu wàccee fédération bi di sutur leen ñoom ñëpp ñu tegaat fi leneen moo xam lan lay tudd xaw ma fédération lay tuddaat wala leneen daal mais nañu ak yeneen nit ah ñu am ah, euh, mentalité yu bees avancer tuuti. fédération bi doxul quoi si nuñ ko gisee wax dëgg fa yàlla. waaw si man moom dañoo war a démissionné moom su fekkee am nañ lu leen gënal te bugg nañ lu gënal sénégalais aussi dañoo war a démissionné quoi. ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko yor ñoom ñoo war a am jom am fulla démissionné waruñu leen dàq pour que FIFA ñëw duñu duñu duñu contre attaqué c'est pas normal ñoom ñoo war a xool ne ñoom ils n'ont pas joué le role ils n'ont pas pu assumer les fonctions qu'on leur avait assignées qu'on leur avait données ñoom ñoo war a am le courage de démissionner kenn waru leen ko laaj ñoo xam ne ay làmb lañ yorook sa CV làmb ci nekk waroo ma nekk si fédération. c' est bon bu dee góor dëgg kay moom da war a kese rek man loolu du ma nangu sax loolu da lay jëblu sax. même bu dul loolu même bu ma amoon moom am na ambition pour def jéem na def jéem na keek mais ay tokaar lañ ko boole ñoom moom ci sax ci boppam ci tokaar la bokk parce que moom mënul gérer gérewul football international mosul gérer affaire la mosu ñoo gérer ñañ seet booy yoo xam ne football nañ football nañ xam nañ kii ak ay genre affaire yi ay kii ñu ngi fi président Marseille bi bëgg na mais pourquoi pas duñ ko jéem a proposé ak affaire yi mu ñëw yor football loolay wax jeeg affaire mais pas ay ay ay Augustin ay Augustin ay Gaston ay Amadou Kane ay Jiite mais tur yi ñu ciy dégg ay Ablaye Sow leen dégg ci football boobu mosuñu sax dem seetaan match Paris wala benn affaire duñu sax dem seetaan match ki au niveau wala affaire ba bëgg ñoom ba gérer booy. parce que ñoom lu tax démissionné wuñ leen dong la parce que Sénégal dafa war a recevoir coupe du monde xaw ma nan xaw coupe dafa xaw coupe du monde moo tax ñoom démissionné wuñu mais ñoom seen bopp xam nañ ne dañ fa war yoon. kan lañ war sénégalais yi rek ñu ngi nii jël tubaab ah tubaab baa ngi nii ñu fekk suñu xaas bu dul jeex du xaaj dem na yoonam nañ jël ci sénégalais yi fii am nañu jom te ah, xereñ nañu. du question par exemple kii def na defet rek ñu dàqa mais bu ñu ko defee kon ban entraîneur la ñu am du ñu mën a am entraîneur bu stable maanaam entraîneur boo xam ne day toog mais benn defet rek nga ne dama koy dàq bu boobaa lan ngay lan ngay jëriñoo ci sa réew xaalis bi ñuy dépensé ci entraîneurs yi mais loolu jaaduwul nañu tan entraîneur suñu dëkk ñun suñu bopp. man moom instant bi su doon damay joxe coach moom man nekkuma koo xamante ne damay joxe ay coach comme ay étranger nii suma ma moom sama équipe ñu joxal ma ko Aliou Cissé quoi. Aliou Cissé en fait il est en train vraiment de de mu ngi wane li mu mën wax dëgg yàlla mu ngi góorgóorlu. mën nañ bàyyi ba kanam parce que gis nga équipe bi mu yor mu ngi def ay ay résultats puis c'est quelqu'un qui est engagé quoi. waxuñu ñu jël ay waxuñu ñu jël ay Aliou Cissé yeeg ay affaires yu jël leen ñëw ay nekk yeeg affaire parce que ñooñu seen expérience moom dafa limité peut être bu demee mondial lañ dem mondial moins de vingt lañ dem ak affaire mais nañ seeti benn allemand bu am na allemand boo xam ne commencé woon na koo defar fi football. Pima proposé woon nañu entraîneur xaw ma nan Wolfried Finke xaw ma genre dinaa jël d'abord Lamine Dieng parce que dama vivre ak moom xam ses valeurs ses ses qualités euh, Cissé euh, euh, bañkat la am na xadar Lamine Dieng am na maturité sur le terrain ñaar ñooñ su ma doon jël ñoom ñaar laay jël dugal leen ci équipe nationale